huwa nuuruna seetal مولانا محمد المختار يا من يريد جنان الخلد يسكن فقدما طلب المفتاء تحتى وصليا إن القرآن هو الميزان تعرف من كما أويت من الأشواق ibbee ibbi boobu nag euh, dama koy may Serigne Moustapha Dramé yàllay kese uh-huh. mu ngi ñuy seetaan fii ci euh, cité Mixa nee na doxalal te ouverture la rek xam naa suñu demee ba ci biir lu graaw lañ nar a gis ah. la ilaha illallah. <laughs> xam naa mu ngi noonu Mouhamed dañuy tourner rek euh, ci euh, oustaz Souleymane Ba euh, parce que tey ñu ngi waxtaanee ku ku mat a waxtaanee mu di Seydi Hadj Malick pour ubbi waxtaan bi rek c'est important parce que ñi ñuy seetaan également mën a bég mën a kontaan suñuy waxtaanee kii di Seydi Hadj Malick lan lañ mën a jàpp kan mooy Seydi Hadj Malick. Ah, tabaarakallahu laaj nga xam naa ne ku dem ci réew toog ci télé boo xam ne àdduna yëpp a ngi koy seetaan war ngaa nuyu waa àdduna yëpp doog a wax li ngay wax aouzu bi zaati llahi li zaati min zaati sheytaani rajim wa bi sifaati llahi li sifaati min sifaati sheytaani rajim wa bi afaali llahi li afaali min afaali sheytaani rajim wa bi aqwaalillahi li aqwaali min aqwaali sheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim fa xamdan liman kaana bila mukawinin fa kawana alkawna bi kalimati kun wa qaala kun fa yakun huwa alxaqu alladi tanadaha an ilxaqi id laa yalxaqu alayhi xaqu man arsala rasula alxaqi bilxaqi lilxaqi fa kaana xaqan an xaqin bi xaqin li xaqin fa xaqaqa alxaqaa'iqa xaqa qadrihi wa miqdaarihi alcaziim wa radia allahu an ussi lwasaa'ili yanbu'i rahmati taaji alcaarifiina baxri alxaqiiqati saaxibi alfaydi walxatmi walkatmi iclam anna lilinsi mashaa'ix wa liljinni mashaa'ix wa amma abul abbaasi ahmadu tijaani fa huwa sheykhul kulli is ma rafaa almustafa qadaman illa wadaa ahmadu tijaani qadamahu min xaysu rafaahu almustafa wa radia allahu an jamii ashaabihi wa muqaddamihi wa minhum sabaqu lgaayaati wa saaxibu alaayaati walkaraamaati man laa yujaara walaa yumaara walaa yubaara walaa yudaaha wala yalxaqu mubaarin lahu bi gubaarin wala mumaarin lahu fi midmar l'homme qui de par sa plume et son encre a réussi à combattre l'ignorance et l'exploitation de l'homme par l'homme sacré père de Dabakh Malik Seydul Haaji Malik ibn Ousmane wa radiyallahu an jamii abnaihi wa muqaddamihi wa banatihi wa minhum ibnuhu alxalifatu al abar man sama himmatuhu waatala darajatuhu man urifa bi borom bone kaare le Saint-Louisien civilisé man qaala li nafsihi mutarjiman wa innani qad kuntu min ali ndari wa maskani fi haala daari andari wa haysu ma laqiita minhum wahidan yaqulu mais eh bien yaqulu shahida wa radia allahu an man xajja wa labba wa taafa wa daara wa aawa wa saa wa rama wa haka wa rawa wa qaala falamma danawna min sana albadri wanjala lana sitru xata dala min wuddi ma biya rasulun xamidun xaamidun wa muhammadun nabiyun sama fawqa simakayni saamiya ورضي الله تعالى عن أخيه دباغ القلوب الذي اتخذ مدح النبي لنفسه علاجا وشفاء وقال إن مدح النبي خير علاجي عالجني به فيه ففيه شفائي ورضي الله تعالى عن أخيهم الحبيب من عاش محبوبا ومات محبوبا ورضي الله عن جميع أبنائه ومقدميه اقتصارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yaakaar naa ni ku toog seen TV jóge Tiwaawan di nga nuyu kilifa gu tedd ga alxalifatul akbar man sumtuhu kalaamuhu wa sukunuhu xarakaatuhu mm-hmm. góor ga ca ragal yàlla ga góor ga ca tekk ga góor ga ca xam fa mu jëm góor ga nga xam ni kàddoom ay dégg noppam ma ko jël aj ko ca xadaratul ilaahiya ndax lépp lu muy def ci ndigal la koy def lépp li muy def ca ka koy déy ko seqanteel muy sëñ Babacar si Mouhamadul Mansour góor ga nga xam ni wax naa ne Mohamed waaw bu doon ak xalifa dañuy dem élection wax naa ni sëñ Babacar Mansour du doon xalif général des Tidjane. Hmm. mu mel ni parenage bee tax. ndax xam nga élection boo demee parrainage bu bi la parrainé wul doo nekk candidat. mën naa sax suñu waa bu ñu ko parrainé woon heure bi mooy nekk président Sénégal mais parrainage bi favorable ci moom mooy xaas bugaan ñu ngi koy nuyu. waaye góor googu laa ne bu doon parenage mooy tax wala bëgg a bokk ci élection déposer candidature mooy tax moom sëñ Babacar Mansour du nekk xalifa Cheikhna Tidiane xam nga lu waral lool laaj naa la ko. nekk xalifa du option ci moom. nekk xalifa bokkul woon ci ay projet moom dafa juddu xàmmee tànn nekk taalibe Seydul Xaaji Maalik moom li mu gëm mooy képp ku njabootoo ci Maodo ak népp noo sant moom sëñ Babacar Mansour gëm na ni kooku mooy kilifaam kon ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal taxawaayam di nuyu mbokkam mu baax mi góor gi ci ruq ba al alimul adibu azahirul wariu al arifu billahi attaqiyu naqiyu sëñ baaba se cheikh seydi samiyu abihi samiyu abihi wa samiyu abi abihi mooy kan mooy kan sëriñ moo do si góor ga ci ruquba góor gi nga xam ne mooy dox ci aan ba yàgg dajek njool màkka hmm. bind ko ci xalimaam mu ne raaytu rasulallahi hmm. fi hada jahran wa yaqadatan sëñ mooro da ngaa nelaw gént ko hmm. mu ni géntuma ko mu ne j'ai vu le prophète paix et salut sur lui en temps de veille fan nga ko gisee mu ne Tiwaawan sama ëttu kër maam sama turandoo sama baayu baay mi ma sama baay tuddee muy soppee baayam may sama sëriñu baay di sama doomu baay mu tuddee ma baayam muy sëñ Maodo si Seydou Hadji Malick. dégg nga loolu te commencé. tabaarakallaahu <laughs> waaw waaw. di nuyu itam borom laafa bi. mooy kan. góor gi wuutu mag ñi toog seen palaas. mooy kan. man naaba anil kirami fa qaama maqaamahum wa naaba fi maqaamatihim wa ujalasa fi maqaadihim Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz Dabakh mi ñu gën a siiwee ci njool Fuuta maa ngi koy nuyu di ko ziyaar di nuyu itam njabootu Seydou Hadji Malick balaa ñu naan ma du spécial nuyoo waaye boo toogee ci télé bi say kilifa di la gis faaw nga nuyu leen di nuyu sama yaayu bopp. soxna ñanga di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér. di nuyu soxna Ayda si mu xalifa bi. nee naa ko moom bintul xalifati wal xalifatu zawjuha ah. bintul xalifati wal xalifatu moom doomu xalifa bu ñu wax daa baax Malick waaye xalifa bii fi nekk mooy borom këram. di nuyu itam tabaarakallaahu soxna Ndey Safi bu sëñ Maodo si. di nuyu soxna Fatou di nuyu soxna Oumou di nuyu ñëpp. di nuyu si Jamil. waaw waaw jël nuyoo waa ci loxoom. waaw waaw sëñ Moustapha si Jamil Jamilul Fiali Jamilul Afaali Jamilul Aqwaali. jamilu xarakaati wala xarwa an yakuna al lil jamili jamil al fiali wal aqwali xarakaati <laughs> Hmm. di nuyu sëñ Habib si mu sëñ Mansour ndax xam naa nuyoo boobu saam laa ci wuutu di leen ziyaara soxna nga laaj laaj bu am solo ma ñëw ci sa laaj bi danga ma laaj kan mooy Cheikhul Xaaju Malik hmm. xam nga Maodo ajaa nen ne Aïcha da laaj góor gu baax góor gu tedd kan mooy Maodo nag buñ ci soree mën nañoo dem ci Maodo ñu laaj Maodo yaay kan. Adja Ndaak maa ngi lay ca yàggee ñu laaj Maodo mooy kan. waaye laaj yaakaar naa ni bu ñu waxee Maodo mooy kan Maodo war ñoo wax mooy kan diggante boobu le deba dina nekk trop trop haut day day kawe. haut boobu laa soxla. ndax Maodo moo wax boppam. Mhm. te bi wax boppam. waxu ko ci boppam waxu ko ci bokkam te gisul boppam daa fàtte boppam fàtte boppam jox boppam ki ko def boppam muy boppam muy kan yàlla la moo da waxal moo da nekkul àdduna di naan maay diw doomu diw diw sama maam déedéet daa dem ba yàlla doog ñoo wax mooy kan soxna neen ne yàlla ne koo gis ci kaw suuf muy dem di dikk mu am bañ naan mooma wala mu mën bañ naan mooma wala mu yegg bañ koy joxoñ wala mu yegg bañ naan ma a nële yàlla nee na jaam laa ko jàppe hmm. Mohamed waaw yàlla ba muy bind ay jaam la bind bindul président hmm. bindul député hmm. bindul waykat bindul musicien bindul benn fonctionnaire yàlla daf jaam la bind in kullu man fi samawati wal ardi illa fi rahmana abda koo fi gis jaam laa ko jàppe man yàlla Maodo moom nag. di doom mi maam Faa Wade pour ñu xam ni nit lañuy waxtaane tey. ki ñuy waxtaane du jinne du malaaka. du yonent. yooyu yëpp du ci benn. comme que du nit nag du jinne du malaaka du yonent kon leer na ni du yàlla. nit la. nit ku am ndey am baay. nit ku juddu ñu nëpp nit ko juddu ni ñëpp. nit ku jaar fi ñëpp jaar. waaye débat boobu duma ci teel a ñëw. kan mooy Maodo. kuy Maodo ba. Maodo dem ba ci yàlla. Mohamed. bëri na ku départ jëm ci yàlla yeggoo. dëgg la. xam nga lu la yegg. la tey dem ba Chine xaratul ilaahi yëg ni sawaay yaa ngi avancé yàlla ni déedéet kuy ñëw ci man doo yëg sa bopp. boo demee ci tasaw dañ naan la xalli an ka suma taal bàyyi fi sa bopp doog a ñëw. Hmm. bëri na ku dem ba yegg. delluwaatoo xam nga lu tax. lu tax da ngaa dem yàlla déey la nga la yàlla déey te yàlla du def ci ndab luy seen. dëgg la moo doon ni. rabbun tabaaraka aw. Mhm. rabbun taqaddasa aw. Mhm. mu yàgg الله رب تبارك أو رب تقدس أو رب تعالى وربي مولانا رب تبارك أو رب تقدس أو رب تعالى علو ربي الله رب تبارك أو رب تحدث طيب رب تعالى علو ربي الله رب

أو رب تقدس أو رب تعالى أولو ربي الله رب تبارك أو رب تقدس أو رب تعالى أولو رب تقدس رب تبارك أو رب تحدث أو رب تعالى علو ربي الله